Déthié ñu ngi lay nuyu am mbégte dalal la ci Rewmi FM yaay sunu gan tey. ñu ngi lay ziar Adja mhm. waaw ñu dooree waxtaan wi ak euh, coronavirus euh, yow ginnaaw politique beeg tànki jàmm yi ngay dox ci réew mi euh, soobu woon nga lool ci xeex bi ba fës ci ay campagne yu sakkan nga initié woon ko ana tey noo jàngatee situation bi nu tollook ñetteelu vague bi nga xam ni daanaka moom nee na faax. waaw jërëjëf Adja man moom dama am mettitu xol bu ma bu metti lool ci man ndax euh, yàlla dafa dogal ñun ñu euh, feebar ba génn le 2 juin 2020 ba ñu génnee li ñu njëkk a def mooy problème bi amoon mooy affaire u bodd gi ñu teg benn mouvement tuddee ko bannissons la stigmatisation nañ fi bodd bodd gi waaye nañu reconnaître méritu ñi wér te euh, di ay jàmbaar ba ñu defee loolu ba mu demee kiir Euh, ministère de la santé xam na ak yeneen boole ko ci ba changer stratégie wax dëgg yàlla mu doonoon lu am solo ba ñu jëmee ci màggal gi dana amam du am du ñu défendre ne war na mën a am daal di taxawal euh, donc opération corona du jaar ci man donc opération corona du jaar ci man bi def nañ ci huit région def ci ay taxawaay ba ñu demee ba bàyyee ko commencé am ñu daal di ne nañu intensifier mooy maanaam nañu taral taxawaay yi mm. donc deuxième vague bi daal di dugg ñu daal dina kon nañ def conscientisation donc conscientisation boobu mooy nañu indi ak teewlu ci ci hmm. donc phase yooyu bañ ko doxalee. ñu dem a dem nag ba xam ne wax dëgg yàlla ak liggéeyu stratégie yi ñu teg ak personnel santé bi liggéey bu am solo bi donc mbir mi dem ba ñu yàpp na ne jeex nañ ñëpp daal di bàyyeeku gaaw a naagu muy euh, defoo sénégalais alors léegi nag loolu boo mu amee wax dëgg yàlla ñun ci lañu ñu engagé opération doggale corona n'est-ce pas donc bañ ko engagé mais comme euh, loo dóor ba muy lappi lappi da ko war a doggali hmm. nañ ko doggali donc nag loolu ñu ko tàmbali ci balaa koor gi commencé donc doxal nañ fi lu mat douze régions yoo xam na ne parcourir nañ ko ci diggante opération dogali dogali dogali léegi lan moo waral kaa yi bariwaat nii ci sa xalaat waaw mais li am mooy li nga xam ne maanaam sàggante ak bàyyi loxo ak naagu tàmbali ci kilifa yi waaw tàmbali ko ci kilifa yi ndax it xam nga dafa am loo xam ne yow boo yoree responsabilité bi li la war mooy ala acco jàpp taw ba donc ñu fan yële ñu ngi woon euh, université Ndar ak yooyu mais lancé nañ fa appel yu am solo jëmale ci kilifa yi mais force de l'ordre yi nañu dolli gën a dëgëral taxawaay yi kilifa yi nañu dolli gën a dëgëral taxawaay yi waaye loolu jotut am léegi nag bu fekkee ne dem nañ nag bañ naan troisième vague dina am du am te ñun bañ ko waxee yàgg na mm-hmm. dina ñëw ndax ci terrain bi boo jànkoo teg nit ñi gis nit ñi ñu nga woon Daaka Medina Gounass ñu nga woon Tamba ñu nga woon Kaffrine Kaolack gare routière yi gis li am yépp ñu ne noonu nañu accentuer ne gaañu bu ñu moytu lii ñuy def ni bàyyeeku bii bàyyandiku bi lii am dana yéeme kon léegi nag loolu nag lii am na fi mu toll nii mm-hmm. ndax ku xool fi mu toll nii fi mu toll ñun dañuy am métti tàmbali ci kilifa yi nga xam ne wax dëgg yàlla rafetlu ñu seen taxawaay hmm. sàggane nañu ba lii am ñaareel bi mooy population bi gaaw a naa ko donc kenn du wax boo takkee sax boo takkee sax masque sax ñu lay re alors fi mu toll nii euh, ñu ngi jëm ci li ñuy wax drame social drame social mooy Euh, ñun suñu plateau technique yi jóg amul benn taxawaay bi ña ko am sax gis ngeen nen nit ñi doon ñàkkee seen bakkan mm. ñu ko yàlla bëgguñu ko waaye boo moytu ci loolu lañ jëm mm. te dina doon koo xam di nga indi sa mbokk bu la cher mu taxaw nii kenn mënul débranché ki nga xam ne ñu ngi ko def sous respiration bu boobaa kon ay ñàkk bakkan moom ndax deuxième vague bi rek gis ngeen li mu fi indi ci ñàkk mm. bakkan kon troisième vague bii moom mën naa gën a tar mais di ñaan yàlla yaakaar nga vaccin mais amul lenn benn pexe amul gis nga vaccin yi ñuy wax nii wax dëgg yàlla vaccin yi ak variant bi yaakaaruma na te gaa ñi dañ dul wax ci kaw vaccin bi bëriwul efficacité n'est-ce pas donc surtout variant bii troisième variant bii mm. ñuy wax xam nañu ne ñoom xam nañu li am donc li ci nekk nag tamit benn solution bi nga xam ne mooy solution bu wóor mooy effectivement ñu développer prévention bi mm. prévention bi mooy gën a takkaat masque ndax masque nag gannaaw corona bi dafa lay faj ci feebar yu bari li ñuy wax ay allergique environnement yu yàqu yeeg poussière yeeg yooyu mhm. masque yi daf la ciy dimbali mhm. saxal set ngir wér opération ba ñu ngi koy déroulé nii ndax ñu ngi jógee nii Louga def nañ fa ñetti fan mais saxal set bi mhm. mooy li nga xam ne moom moo moom moom li nga xam waruñu tàggoog moom suñu loxo yi di set ndax suñ loxo yi ñoo ñuy jëriñ waaye feebar bu ne day jaar ci loxo yi pour mën a dugg si ci ñun kon di raxas suñu loxo yi ak saabu di raxas di di di di di di di di di di bàyyi xel moytu nuyoo yi ah yooyu dafa doon yoo xam ne diine yi ñu bokk yëpp digale nañ ko waaw ba ba yenn yi raj raj loo bi et je pense que kilifa yi war nañoo bàyyi xel ci yenn actes yi nga xam ne ñu ngi koy posé acte yooyu bu ko posé koo bëgg tere day bañ. Mhm. bu ñu fàttalikoo ci corona bu njëkk ba kilifa yi tere génn ba pare seen doom yi di génn ba am ñoo cee ñàkk seen bakkan koo bëgg tere day bañ. yow mii waate yow yaa njëkk a ko yaa ko njëkk a tere sa bopp tere ko sa njaboot kon loolu ñu ngi lancé waat appel yi bii terrain bi gisuñu ci kudul service d'hygiène la ñu gis ñu nekk ci terrain bi ndax ñun douze régions yi ñu def fu ñu dem ñu ngi leen fay fekk. Mhm. donc di leen jaajëfal tey lancé nag un appel ndax tey li ñuy wax prévention. mooy li gën a gën am solo te service d'hygiène tant que defuñu ko direction général maanaam prévention duñ ko mën a réussir ndax bu buñ defee direction générale action sociale wala direction générale de la santé mais ñooñu lii tere nit ñu dem hôpital kay nañu nekk mettre l'accent ci loolu nañ def moyens yi foofu. Hmm. donc man plaidé wu pour ndax tey ba ñu nekkee conseil technique ministre de la santé Issa Mbaye Samb yal na yàlla yeesal yërmandeem mais choléra moo ñu daan ko mooy liggéey bu am solo bi nga xam ne service d'hygiène def na leen defoon direction. Hmm. tey bu ñu yëkkatee seen grade. donc dooleel leen cëral leen n'est-ce pas donc recruter leen ay personnel yu doy jàpp nañ ne effectivement donc dinañu mën a réussir prévention bi hmm. te prévention boobu moom mooy tax effectivement donc lii dina daanuwaat te bu daanoo ñu saxal ko waaw. d'accord alors ñu wax ci euh, université la fa xew Cheikh jot Diop notamment euh, fitna ya hmm. fa yeewoon li ci toftalu mooy ay étudiants la ñu daan daan yu ñu jàpp ni dafa tar ñooña euh, ni dañuy hmm. dem cour suprême waaye ministre bi itam dégg nañu li mu wax ni léegi nii lay demee maanaam ku def naka su dul noonu ñu rëqee nii sa ndigg loola di wane ni coow li jeexagul yow ambassadeur de la paix nga yàgg itam dox tànk jàmm ci université noo gisee lii lépp. waaw man de euh, dafa am lu nga xam ne moom laa ñu ko wax mooy man bokk naa te jii maanaam ci wàllu mouvement étudiant. Mm. yàlla dogal na ñu jiite ko lu ko kenn mësut jiite ñu xam ñu ci xam bu nga xam ne ñu teggi suñu loxo. te mësuñu see jox dara mësuñu see xaar dara. Mm. tey donc ci expérience a wér ndax góom balaa ngay de situation da ngay xam da koy mën a diagnostiquer ba mu laar hmm. léegi nag université tey violence bi fa am bu mu mën a doon maanaam ñun dañ koy condamner te tey am na image boo xam ne ne ñun mënuñu koo fàtte te daf ñuy metti lool mooy étudiant bi ñëw daal di xotti orma foqati micro professeur am hmm. kooku luñ ko daan rek doyul kooku luñ ko daan doyul waaw ndax loolu moom c'est un mauvais exemple qu'il faut sanctionner de manière exemplaire mais tey am na lu ñuy wax exagération maanaam boole nañ ci lu ci bokkul mm-hmm. ndax tey boo jékki-jékkee dégg ministre de l'enseignement supérieur naan way mbir yi désormais nii lay demee di fëgg dënn yow da ngay def li nga war a def ba pare ndax am na jaar nga fi kuddu gis nañu façon yi nga def am na yu nga xamee ne maanaam dafa dul yëfi kilifa. Mm-hmm. ndax euh, maanaam lor nit wala daan nit du lu nit di war a namboo wala di fëgg dënn ba fi taxawee naan non dañuy dañuy euh, dissoudre amicale yi mais balaa ngee dissoudre amicale da ngay abroger décret bi nga xam ne moom moo samp amicale yi ndax amicale yi décret moo leen ci teg. Hmm. kon université xale yi ñàkk nañoo xam formé wuñu leen. cadre bi leen war a accueillir ñu former leen ba ñu xam li tax ñu falu ak seen mission loolu moo amatul. te donc boo xoolee université ndakaaru problème yi ñu fa ëpp mooy mouvement étudiant amatul ay intérêt rek la ñuy xeex donc problème mu management la te problème management boobu xam nga la. Hmm. kilifa yi. ñoom ñooy ñoom ñooy wàcc charte ñoo du respecté texte yi étudiants yi tamit parfois nga am benn situation arrangée la nga dugg ci mais da nga dem ba ci mbir na bëgg caa génn doo ci mën a génn looloo fi am kon dañu war a indi dammeel ci mbir yi loolu moom ah wax dëgg yàlla am nañ ci ay pexe am nañ ci ay solution weekend bii rek étudiants yi nekk ndakaaru yëpp di maanaam ñi ko jiite ñi ci ëpp ña woon Louga donc ci daje bu am solo bu nga xam ne ne seen xarit moo ko amoon ñu invité ma fa ma daal di fay teew ak ñoom waxtaan ak ñoom ci lu bari te bu ma delloo Dakar danañ ci jublaat di leen sensibiliser mais université nañu fexe ba euh, troisième variant bi corona bi du fa du du du du du fa jaaraat. Mm. donc lu ko jiitu week-end bële euh, amical étudiants yi nekk ndar yëpp président amical yëpp ñu dajale ci wax fédération bu ñu wax FAMES mais dañ ma woo ma waxtaan ak ñoom am yooyu ñu def ñu sargal ma sargal yu am solo. Mm. kon ñun laajuñu dara. mësuñu ñoo jël dara université mësuñu ñu cee may dara mais heure bu situation amee ñu yëkkati suñu àddu dox ci tànku jàmm am léegi bii ci Dakar nag lu ngeen ci fas yéene def. ah mooy moom mu Dakar bii xam nga maanaam dafa il faut dinañ ci doxaat tànku jàmm. Hmm. am na sanction yoo xam ne ñun. dañ ne sanction yooyu comme ki poqati micro kooku amul dellu ginnaaw kooku moom luñ ko lu def naa ne liñ ko dóor moom moom yaakaar mënuñu ko romb hmm. mais ña ca des war nañu xoolaat ndax boo profité bëgg a sànkaale ñu bëri. Hmm. te warul àgg foofu. kon loolu it dinañ ci def ay jéego. Hmm. mais autorité université yi ñoo tëju. maanaam dañu waxtaan seen biir li ñuy def pilotage à vue hmm. mais dañuy jékki-jékki rek dañ situation am ñu seet nan lañ koy gérer. waaw maintenant nag bu nit ñu nekkee ci gérer situation lii rek kay am. waaw lii rek ay am te loolu moo war a jeex façon bi ñuy manager université moo war a deñ donc ñooñu reconstruire mouvement étudiant dañ leen encadré ñun pare nañu ci suñu expérience ak confiance ak liñ ci xam mën a taxaw ñëw wax teg ko waxi dëgg mais am na ñoo xam ne tey donte ne am nañ comme médiateur am nañu ay xalaat yoo am nañu ay solution mais ki nga xam ne boo ko ne yemal fi mu fii kooku mënul régler yenn problème yi mhm. donc ñun daal xam nañ ne solution am na xale yi tamit li gën am ñu ay qualité yu extraordinaire maa ngi ciy cité rek benn exemple mhm. ku ñu wax euh, président bi ñu falaat monsieur Van Dam Sène bu Fakleer ndax forklift fa la bassin problème yi nekk mais état d'esprit bi ma gis ci ñoom mais il faut que ñu tirer le meilleur d'eux-mêmes hmm. loolu je ne le dis pas pour autre chose en le citant il y a c'est d'autres aussi présents qui sont là mais je cite simplement son exemple ndax problème bii foofu donc élection yi façon bañ ko defee ak résultat yi nañ ko doxee ak nañ ko gérer hmm. looloo jur problème bi dëgg dëgg dëgg bu ñu waxee dëgg loolu la. kon violence bi dafa jóge ci autorité yi. Hmm. ci façon ba ñu manager te mu waroon a leer te leerul. Hmm. donc du ñoom ñoo truqué de truqué hmm. mais xam nga dafa am lu dal xel lu nga xam ne ne boo ko defee. nit ki maanaam li naan kii bëre bu ñu la daanee ci fëriñ boo xoolee sa tànk yi mu weex. dafa naa dootoo amati loo wax da nga a jóg rek dem ñibbi. ñu wax ci wàllu politique ndax yow itam euh, da ngay ciy yëngu yaa jiite parti visa sànq ci waxtaan wi xamal nga def plénière ci euh, modification yi nga xam ne indi nañu ko ci code électoral bi euh, yow lanay sa position ci changement yi donte sax nee nga xëy na càmbaroo mbir yi bu baax a baax. waaye euh, yaa nga woon ca ndorteelu waxtaan ya. kon am na changement yoo xam ne yaa ngi ko doon xaar. te itam xëy na ñàkkul loo ci xam. tout à fait waaw man damay fàttali ne. man dama nekkoon ñaar ñi représenté woon nenoon plénipotentiaire opposition ci dialogue national bi passé affaire parrainage yi ñuy wax nii ñun ñoo demoon Praia ñun ñoo demoon Pologne kon xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax alors euh, yi nga xam nag changement yi am pour man yi ma ci dégg baax na ndax jotu moon am temps toog di ko seetu ndax maa ngi woon ci terrain bi ci affaire corona bi mais buñ ne tey euh, parenage bi tegg nañ ko parti politique yi loolu baax na képp kuy candidat indépendant war nga wane ne am nga mbooloo mu la loolu jàpp naa ne hmm. baax na waxu caution bi def naa ne waxa décidé guñ ci ndax ñun am na lu ñu proposé woon. Hmm. mais yaakaar naa ne gaa ñi ñu nga ca leneen. mais man damay duut baaraam rek caution euh, bi ndax xam nga dafa am loo xam ne maanaam combat boo xam ne doo xaar ba mu ne kër nga bëgg a def lu ne jonn donc genre ñoom Diop de courant nga xam ne ne coalition sur coalition FRN lu ne créé nañ ko maanaam pour rek bëgg a nekk fii gaa ñi dañoo war a noppalu ji loolooy dëgg mais nekk fii lu nekk rek ay on dit on registre ak la gens là c' est du loolu c' est suranné dafa dafa loolu maintenant nag côté pouvoir man nit ñi ñoo ne euh, président Macky Sall jox nañ la majorité majorité bi nag ba P ba PS nekk da doon exercer majorité am. Mm. ba PDS nekk dafa doon exercer majorité donc benn Bokk Yaakaar si bu fi nekkee day exercer majorité kooku c' est le jeu politique seuls choisir des gens crédibles ñu nga xam ne ne voilà maintenant nag ñun li ñuy wax. mooy tey géopolitique euh, bi donte ne ñun ñu ngi bokk ci coalition bu ñuy wax diisoo bu jàppale président. Hmm. mais amuñu benn kontante ndax li ñuy liggéey tey ji ba président di ñëw mais Thiès fii mais ñi dafa am ñu ñuy jox moyen ñu téye ko benn t-shirt sax duñ la ko jox. mais bu dee amee yow yaay dem dee mais bu njëriñ amee ñoom ñu féetee ko président ma Macky Sall war na xoolaat lool man day suñu parti visa les citoyens dañuy dem élection. Hmm. am nañ suñu récépissé. seen bopp ngeen di demal wala da ngeen di ànd ak coalition bi. waaye ñun dañ ñun fi mu toll nii li ñu gis ci gaañ dara daw ñu ci. Hmm. ndax it ki nga xam ne bu lu bu bu njëriñ amee nga daal di koy wéetoo seddale ko seen biir. bu jafe-jafe amee wala xeex amee ñun ñi nga xam ne ñooy dof ñoo mën a porter combat ñu bàyyi ñu dootu ñu nangu ku ñu utiliser. Hmm. ñun dañoo fas yéene dem élection. du ñu wéeru ci kenn. Hmm. ndax ñun suñu parti ñu ngi fàttali ne ba ñu juddoo dañoo hmm. juddu rek. Hmm. am six mois dañu juddu six mois après élection locale ñëw. ñu dem ci fukki commune ak juróom-ñaar gagné benn commune sans coalition. Hmm. am onze mille deux cent vingt ak trente trois conseillers. mais loolu mu doon lu am am solo ndax parti bu juree day dem élection. Hmm. ba ñu nekkee ci opposition bi tamit dox dox dox dox dox ba ñu dugg législative ñu war a doon benn say ndax boobu vraiment def nañ taxawaay ndax ndaw yi ci Sénégal opposition bi yëpp mën lañ leen dénkoon may doxal combat bi mais ba ñu demee ba xam ne ndam benn say la ñu war a def rek pour jël majorité assemblée nationale. ñi nga xam ne ñoom ñooy parti yi am xaalis ñi am doole am kii mais ñoo war dem bàyyi mànkoo wattu Sénégal taxaw mànkoo taxaw seen bopp mooy mm. taxaw seen Sénégal la wax mais loolu ba mu amee ki ñuy wax Ousmane Faye mais dafa jël mànkoo tour sigle mànkoo wattu Sénégal bi jël ay kiyam mais résultat yi mu def mais c'est extraordinaire taxawaay matew ko mais parce que am na liggéey bu am solo bu nekkoon ci conscience nit ñi nit ñi doon ko xaar moom loolu la galaane nit ñi voteel ko te xamuñu ko mm. kon maanaam wor gi moo bari Hmm. maintenant côté pouvoir li ci am siisante bi moo bari ñun nag ñun maanaam ñi ngi ci côté population on est la ligne du peuple ñi ngi ci te duñ ko wàcc. Hmm. donc euh, vraiment géopolitique bi moom mi ngi noonu et je pense que voilà yii ma déggagum ci changement yi. jàpp naa ne voilà jàpp naa ne jaadu war naa mën a nekk. Hmm. waree nañ la ci opposition bi pouvoir bi itam la fay xeeñ neexul ci hmm. yéen euh, est-ce que sax seen parti bi tamit am na doole doole gu tax xëy na euh, fullaal gi ngeen di sàkku ñu mën kaa def ci yéen. mais xam nga Seydou Seck am na ñu ëpp moyen. Hmm. ak visibilité dem ci presse beeg yooyu. ñun de ñu ngi ci terrain bi te xam nga parti moom da ngay doon koo xam ne au moins war nañ la woo élection locale. man bu ma doon décider bu damay décider dañ naan kenn ku ne na dem élection. Hmm. ku amul ay conseil wala ku amul nangami conseil amatul raison sa parti di exister ndax prolifération bi am nii. Hmm. mais li ko waral mooy parti yoo xam ne buñ ju dañuy dem wuti récépissé rek. yore ko di ko lu yegg di def ay façon. ñun jëm ñun gëm nañu ne xëy na fi suñu doole toll. Hmm. Ah, taxawaay bi ñu am day yaakaar naa ne euh, am na transition bi am. buy am dinañu bokk ci ñetti wala ñeenti force politique yoo xam ne ne kenn du waxati Sénégal ak ñun. dina leer ñu ngi jëm ci ay jërëjëf Déthié. jërëjëf jërëjëf Adja Ndeye Fatou amoon nañu mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM tey. Euh,